réel tey problème yi nekkee ñun Sénégal xaadisatul ifki boobu nan la demee woon naafeq yi ñoom ñoo ko tuuma ñoo ko génne woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii ma leen di wax soxna si yonent bi la dal soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Aïcha nga xamante ni nii euh, moom lañu ñu tuumaaloon ak saxaab bu ñu wax Safwaan bun Maatal Safwaan bun Maatal moom lañu ñu tuumaal ak Aïcha ngeen xool mbokk ak ñun niñ koy dund ci suñu réew yonent bi sallallahu alayhi danaan def buy dem xare day def xuraan xuraan mooy lan mooy day teg bant foofu tam dañ fiy jàngale tuuti nag balaa ñoo dem mooy ñun góor ñi ku ci am soxna yu bari ñett ba ñeent ba ñaar sooy def dara sooy génn di tukki wala ngay dem fenn da ngay xool ki nga gën a nopp rek yóbbaale danga nga ko layala layala layal euh, boo waxee nga ne ah yow da nga kii daa diis doom yee tax dañoo diis euh, déplacé du ko yomb nangam nangam da ngaa gën a nopp kee rek nga jël ki nga gën a nopp yóbbaale booy tur liggéey fenn di fa toog ab semaine bépp di ñëw weekend da ngay jël ka nga nopp yóbbaale fa ngay liggéeyee ni moom moo fay moo fi nekk ak man ñi ci des nga baleen ci kër ga ñoom semaine bi lañ lay gis te buñ ñëwee ñaari fan samedi ak dimanche nga koy ñoom ñaar nga koy séddale bu fekkee ñett nga yore bu dee ñeent nga yore ñoom ñett nga koy séddale daal di delluwaat ca kee am fa juróomi fan tegoo ko fenn tegoo ko fenn li waroon mooy boo de yóbboo kii une semaine semaine bee boo ñëwee indi ko te yóbbuwaat ki ci des une semaine indi ko yóbbuwaat ki ci des loolu moo nekkoon lu yoon waaye ñu ci bari ci ñun dañuy topp suñu bakkan foofu ñu xool sang bi moom man la ko doon defee bu daan dem xare bi bëgg ànd ak kenn ci soxna yi day danaan leen kaay leen toog ñu toog. mu ne yow jox ma sa bant nga jox ko bant jox ma sa bant jox ma sa bant jox ma sa bant ñu jox ko bant yi mu teg ko jaxase woo benn xale wala benn nit ci saxaaba yi ni ko jëlal ma benn bant mu yëkkati benn bant mu ni ku moom bant bi ko Aïcha ne maa ko moom mu ni ko kon yaay dem bu ko Hafsa ne maa ko moom mu ni ko yaay dem bu ko Maymuna ne maa ko moom mu ni ko yaay dem ba mu defee xuraan ak xool kan la war a àndal ci xare bi dugal bant yëpp ñu génne bantu Aïcha génn kon nag boroom jox na yu bari nag jànge foofu <coughs> ne ku ciy àndalati di génn defal xuraan bu gañe génn wala nga ay ay loo ko bu ki génnee tey ki génn suba ki génn ginnaaw suba loolu mooy yoon ba mu defee noonu Aïcha di génn mu ànd ak moom ci xare ba ci xaswatu bani mustalaq xare boobu bani mustalaq la yonent bi doon xeexal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak Aïcha biñ demee ba xeex ba jeex ñu war a ñibbisi bu ñu waree ñibbi si dañ daan def bu ñu ñibbi si ba ci yoon yi bu ñu sonnee ñu campé ci benn jataay noppalu bi ñu campé nag ci yoon wi noppalu ba war a jóg fekk Aïcha xaajatul insaan mooy soxla na boppam mu daldi di génn sori nit ñi dem fu sori pour soxla googu mu soxla boppam ba muy wàññeeku di dellu si far ab caqam ndag <coughs> mu di ko wër mu di ko wër moom Aïcha bi mu koy wër diiri fa ab temps ba mu ñëwee Aïcha dafa doonoon jigéen ju oyof jigéen ju ci la woon bi ñuy yëkkati parce que kii yooyu ñuy defal euh, jigéen ñi ci yi ñuy def ci gëléem yi mooy teg yooyu nga xam ne dañ koy def mu mel ni genre néeg bu ndaw ñu def ko ci biir nga xam ne jigéen ñi day dugg ci biir ñu wàcce lépp yow doo ko gis moom lañ daan defal Aïcha biñ ñëwee fekk loolu mu tege ci suuf rek dañ ko ne am miim rek teg ci kaw gëléem bi takk jàpp nañu Aïcha ci ñu daal di départ ndekete booba Aïcha mi ngi des ci àll bi bi Aïcha ñëw di seet si sang bi ak saxaaba yi ñëw fekk leen ñu dem Aïcha ni naa tëdd nii sangoo sama sama mël fa suñ ma nemmee ko ba gis ni gisatuñ ma dinañ ma seet si fi ñu fi ñu campé woon bi mu tëddee noonu moom Aïcha far nelaw jàpp ko fi mu tëdd ci noonu euh, Safwaan bun Maatal daal di ko fay fekk bi mu ko fa fekkee daal di xam ni kii Aïcha mais Safwaan daa ñëw ba jege ko daal ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu la jëfandikoo daal di yësal gëléem gi ci kanamu Aïcha Aïcha daal di siggi tiit daal jóg daal yéeg ci gëléem gi ba léegi Safwaan waxul ak moom benn kalima néewu ko kii kan la Aïcha néewu ko foo looy def fii néewu waxul ak moom kalima ngir worma gu ñu jox zawjaati rasul ndax ñoom ummahatul mu'minin lañ ñooy nday jullit yi mu ne Aysa mu jiital gëléem gi Aysa yéeg ñu ànd day jiital gëléem gi di dox bu demee bañ war a noppalu day yéesal gëléem gi ah daal di toog nële Aysa wàcc toog nële Aysa toog nële buñ pare day ñëwaat yéesalaat gëléem gi Aysa yéeg ñu déparaat ba ba ñuy dugg Madina bi ñu dugg Madina Abdullah ibnu Abi Salul daal leen di gis nga xam ne am naa feq bu mag la daal ne Aïcha ak waayam bi luñ doon def ci àll Aïcha ak waayam bi luñ doon def ci àll ba naba ngoog xibaara ngoog génn na benn information sànni ko gis nga gars yi noonu lañu def ci internet bi dañuy jël benn waa diw ak diw mi lu xew seen diggante daal di sànni instant ñu génn photo kee jël collé ko ci kii wala ñu jël photo kii collé ko ci kii ni kii ak kii lu ñu séq sànni daal lay bàyyi nag yow jullit bi yow jullit bi nga wax ci bani xaay kee wax ci bani xaay kee partagé kee wax kee commentaire kee partagé kee wax kee commentaire loolu yëpp yàlla malaaka maa ngi koy bind boo liggéey li nga wax li nga doon wax foo ko jëlee ak foo ko gisee na la leer ni saa bu dee tuumal njaaloo nga wax ci benn baat yow sa juróom-ñett fukki at taxaw na suñ la ko dóorul fii préparé ko ëllëg préparé ëllëg quatre-vingts yar ñu la war a dóor sa kanamu borom te àq la joo xam ne yoral nga ko nit ki nga ko wax xamoo ndax dina la ko baal wala déet kon Abdullah ibn Abi Salul daal ne Aïcha ak waayam bi ñoom def ci àll information bi commencé tas Madina comme ni gars yi partagé gars yi ni partagé leen information partagé comme ni ngeen koy gisee léegi partagé leen information commencé partagé information kii wax ko kii waa ay eh, waa yëngali xewam ah Aïcha kat léegi la ñëw ànd ak waayam di nangam nangam kee daal di wax kee kee wax kee kee wax information bi tasaaroo Aïcha toog nañ lu yàgg xamu ci dara gis na ni yonent bi daal xaw naa ñëkkal kanamam ci kanam ci côté mu xamul lu xew waa kër Abu Bakar ñoom ñi ngi bëgg a dee ngir gàcce gu leen daal ci xew-xew bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog na weer mënul xam lu leer ci information ndax suñu borom wax ko dara wax yu wàccul yonent bi dugg ci saxaaba yi di leen laaj seen xalaat lan laa war a def xew-xew bii gis ngeen ko lan laa ci war a taxawee bu ci nekk saxaaba bu nekk di ko wax xam di ko wax xalaatam xoolal mbokk yi loolu moo dal Seydina Muhammad ci njabootam kan moo ko yóbbee mooy kàccoor buy wax lu dul dëgg kàccoor boo xam day gis benn image rek jox ko côté bu ñaaw bi diwaanu ma naa diwaanu Manaahilu Saafiya amoon nañ benn mbokkum taal bi mu ci nekkoon damay bañ wax turam xam naa bu ma waxee xew-xew bi jombul kenn dina ko xam ci diwaan dafa takkoon ab séet boori Kawsara booba diwaan ñu ngi doon dund dund gu sàmm gu rëy jamono yooyu moom lañ ca chaise siège bi nee fii nga xamante ni moom maanaam ay sart lañ tegoon yu yu yu yu dëgër ci bëgg nit ñi jub rek ci bëgg nit ñi jub mbokk mi bi mu ànd ak bi dafa doon nettali moom am mbokk taal bi yu ko gis ci lëndëm ji rek daal di làqatu bëgg a dem mu leen eh kaay leen kaay du ñëw mun leen nuyu leen nuyoo leen kii kii sama soxna la tiw ñu daal di koy nuyu ah waaw sëñ bi na nga def sang bi na nga def waaw soxna si na nga def nangam dem mu ne du ma ko deful woon boo liggéey ñu ni jëwriñ diw wala diwkat dañ koo daje rek même mu ànd ak benn xale bu jigéen ci ci ci mbedd mi yonent bi salaasam def na ko di dox ci Madina ànd ak Maymuna am saxaaba yu ko gis rek daal di laxat ci lëndëm gi rek mu leen kaay leen kaay leen ñu ñëw mun leen man la Muhammad maa ànd ak sama soxna Maymuna nuyoonte leen ak moom gis nga gis nga kon mbokk yi nit ñi dañuy gis benn image rek daal di koy ñaawal léegi nag internet bi dañ ci jël benn image rek sànni la ko yow nga nga fanaanee commentaire yéen doo commentaire yéen doo partagé di lu bon di wax lu bon ñu waxal la loo xam ñu wax loola loo xamante ni moo lay tàbbal sawara yow moo lay tàbbal sawara kon mbokk yi looyu nañ ciy bàyyi xel biñ toog yonent bi toogee weer ci la yàlla daal di wàcce aaya inna alladina jaa'u bil ifki usbatun minkum laa taxsabu charran lakum bal huwa xayrun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ismi waladi tawalla kibruhu minhum lahu adabun azim suñ boroom ne doo ko indi aaya bu setal Aïcha ba mu ne ñi nga xam ne dañoo indi duur wi ci la ni gaa yi ni haa nañ taxaw alerte suñ borom alerte na nee na lii aw duur la kon du dëgg suñ boroom daal ni ñi indi duur wi mbooloo lañ ci yéen yéen waa alu bakari nag yéen waa abu bakar abu bakar ak njabootam nga xam ne amul ngeen du leen nekki bu leen jàpp ni lii lu bon la ci yéen bu leen jàpp ni musiba la ci yéen jàpp leen ni teraanga la ci yéen ndax bis ñi ki tey yàlla setal na seen doom muy Aïcha kon bu leen jàpp ni aw ay la waaye da jàpp ni xayrun lakum teraanga la ci leen waaye nag ñi nga xam ne ñoo ci doon commentaire kenn ku nekk la nga jëf ci bakkaar da ko am ñi nga xam ne dañoo fetteerlu nag nangu ñoo dell ginnaaw nangu ñoo toog bu ëllëgee suñu borom dana leen buggal buggal mu tar léegi mel ni dañoo posé suñu borom question ni ko waaw événement lu mel nii bu amatee lu ñuy def lu mel nii lu xaw a ñaaw sa xel lu xaw a doy waar nga xam ni image boo xam ni xamoo lan la bu ñëwatee nooy def mu ni lawlaa iz sami'tumuuhu dhanna al mu'minuuna wal mu'minaat bi anfusihim wa qaalu hada ifkum bi mu ne aka neexoon waaye lii ba ngeen ko gisee yéen jullit yi ngeen jortu lu rafet ngeen jortu rafet ne lii duur la du dëgg nee na noonu ngeen waroon def waaye waru leen woon a xalaate ci côté bu bon bi mais da ngeen waroon xalaat ci côté côté positif bi ci bu baax bi bu leen xalaat ci côté bu bon bi léegi nag ñun bépp lu ñu gis rek dañuy xalaat jaanibul jaanib jaanib dañu xool jaanib bu bon bi jaanib salbi bi moom la ñu xool mais duñu xool jaanib ijaabi bi moo tax suñ borom di wax ne inna alladina yuhibbuna an tashia alfaxisha fi alladina amanu lahum adabun alim fi dunia wal axira wallahu yaalam wa antum la taalamun moo tax borom ne ñi nga xam ne ñi ngi wër tout le temps tasaare ñaaw téef ci biir julli gi xoola barki demoo jaay dañuy gis koo xam ne jullit lay tuddee boppam te jullit lañ koy jàppe nag ba mu def preuve du contraire mooy jullit lañ koy jàppee ndax lañ Sëriñ Tuubaa waxoon ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah nga fekk ku mel ne sang bu tedd boobu de xaadimu rasul ci Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu nga xam ne danaan anqul min lawxil ilahi walqalam xatti bila waswasatin wala xulam man ci lawxul mahfuus laay toxale li may bind isa katabtu ihtaza arsul baaqi wa sabaxat malaaiku tibaaqi su ma bindee xaras jaayu kursi jaayu malaakay sàbbal suñu borom ndax la may bind nga jóg jóg yow bay jàmm ci bindam te yow boo matu sa fer gi ji des na parce que ñun d'accord nañu d'accord nañu d'accord nañu soo amee xam-xam ba yëg ni lii gis nga ci yow loo seetlu mais nga wax ko borom xam-xam yi tontu la soo amee dëgg ñu jox la ko parce que murit moom ku ne xam nañi boroomi xam-xam rek la fees d'accord nañu nga joxañ ne lii kat nañ ko xool wala nañ nanga nangam joxañ dara du dara ñu xool ko ñun ñëpp ñu bokk ko xool ku am dëgg am dëgg loolu xam-xam nangu na ko gëstu nangu na ko mais toog fa nga toog naan sa ataaya wala sa kafe toog fekk ku mel ne ku tedd kooku nga xam ne li mu liggéey tey boo demee ba naan ashhadu an laa ci am réew yow joué ci lu bari yow ba tax nga naan ashhadu an laa ilaaha ci am réew day mel ni waa ji ñëwoon ca jàkka ja rek paa yi maye seen sëy ba pare mu ne mu jël kàddu ne paa yi yéen yéen daal sëy bi ngeen maye dara baaxu ci ñi ngeen di maye sëy dara baaxu benn paa bu a tontu jóg ni ko kon na xam ne yow doo doomu yoon mu ne ah mu ko waaw doo doomu yoon judduwoo ci yoon mu ne ko ah mu ne ko sa papa nii lañ ko maye sa yaay kon bu sëy bii wérul sa sëy waajur wérul te bu wérul kon judduwoo ci yoon kon ñu xam ne maanaam dafa doy dafa doy dafa doy ci nit ki di toog di wax lu ko neex ñuy jaay ñuy bàyyi muy jàll dafa doy parce que ku wax ci xam-xam ñu tontu la ci xam-xam mais ku wax ngir tooñ dañuy faj tooñ nga mooy yoon mais ku wax ci xam-xam moom bu waxoon ne buñ demee ci jësbul xulub kat Sëriñ Tuubaa ni mu waxee way sàngam arut bi dëmm damm na wala naxu bi damm na waaye bayaan bi damm na wala mantiq bi nangam wala nangam wala nangam mais ñu ñu discuter ko ci xam-xam su amee dëgg ñu xam ne am na dëgg su amul dëgg mu mu mu xam ne li mu doon wax du dëgg mu àndaat li na xew ci mbooloo mi waaye naan sa ataaya naan sa café toog say say say say caméra wër la ngay wax lu la neex ñuy bàyyi muy jàll dafa doy ci tooñ dafa doy dafa doy parce genn tooñ gi ci pas-pasu doomu aadama loolu dañ ko war a xeex loolu baaxul day yëngal am réew day indi fitna te al fitna naa'ima laana allahu man ayqadaha fitna ngi nelaw te yàlla day rëbb ko yee kon dafay toll dafay tool jamono ñu nag xoolaat suñu bopp ñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax critiqué waat suñu bopp te parce que li ñu war a critiqué xëy na loolu du tem waxtaan mais li ñu war a critiqué ci yoon bi dafa bari liñ war a liñ war a liñ war a xoolaat ci doxalin yi dafa bari lu jóg lu waay jóg rek wax ko sëriñ bi te ñu xam ne lii du yoon lu waay jóg adressé ko sëriñ bi te ñu xam ne lii du yoon te koy def teguñu ko ci dëgg yooyu yëpp dañ ko war a jëlee ci yoon dafa jot tey ñu dam jàpp seen loxo ni leen baleen lii ci ci mu neex mu naqari ñu forcé leen ñu ba ko te léegi da ngay gis ku def benn xew xew bu ngan woo mbooloo mu bari taf photo sëriñ bi wala mu taf photo ñu tedd ñoo njabootu sëriñ bi di fecc ak di caaxaan ak maanaam doo xam day sabaru doo xam day fecc doo xam lu muy def ba pare te sëriñ bi lay taf ci ginnaaw léegi image boobu di tasaaroo ci àdduna bi lu ñuy wax waa kër sëriñ Tuubaa yi nangam waa kër sëriñ Tuubaa yi nangam te fekk ni sëriñ Tuubaa fowul folu kuy fo doo doo doo doo xeeñ fa mu nekk te loolu dafa bari dañ ko war a dindi mais di ko xool xoola gaa yi rek yow xoola gaa yi rek ci yem man raa minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika ad'afu l iman lu munkar daa am ñoo xam ne am nañ ko waaru dindi ko seen loxo dañ ko war a dindi mais kenn du toog fa nga toog rek naan gars yi daal li ñuy def du yoon mais liggéey ci nañ fexe lu dul yoon ci yoon wi ñu dindi ko mais pas di laisser aller bi dafa ëpp laisser aller bi dafa bari ñuy tuddawoo yoon wi te dunda yoon wi nañ leen dañ leen identifié téye seen loxo ni leen li ngeen di def du noonu foofu tam dafa jot ñu di ci liggéey ñu ci liggéey bu baax kon ñi nga xam ne suñ borom nee na dañuy bëgg di tasaare lu ñaaw di ko jëmale ci ñi gëm nee na ñooñu dey bu ëllëgee am nañ mbugal mu tar ci àdduna ak alaaxira ndax yàlla xam nañu ñoom nag xamuñu waaye yàlla moom xam na yonente bi salaa sallam ne laa tu'zu ibadallahi wala tu'iruhum wala tatlubu awratihim fa innahu man talaba awrata axi lmuslim talaba alilaahu awratahu xatta yuftiahu fi baytihi yonente bi salaa sallam dafa waxoon ne bu leen di gëstu awray jullit yi di ko wuññi su ngeen ko defee yàlla dina wuññi seeni awra dina leen toroxal kon képp koo xam ne yaa ngi sax ci di wuññi sa awray mbokk gëstu ci lu bon sa mbokk di ko wax da nga xam ni yàlla dina wuññi sa awra bis ci àdduna bu àllaaxira ñépp dinañ xam ni yow lii nga nekke woon yàlla tabal la sawar yàlla ci yàlla musal min afati takallum bil fahshi wa sabb wa badaa wa shatm bokk na ci afatu lisaan mooy wax ju ñaaw saagante xastante te bari lool te suñ borom ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum dunubakum suñ borom nee na yéen ñi gëm wax leen wax ju jub wax leen wax ju baax wax leen wax ju rafet mbokk yi nañuy waxante lu rafet nañuy waxante lu rafet bu dee ci biir tarixa yi nañuy fexe di waxante lu rafet xoolal Serigne Touba maam Alhaji Malick radiyallahu taala anhu da yónnee benn هدية هديتي موجبها الشلاب محبة يا أيها الحباب أدام ربنا لنا حبل الوصال ونجنا شر الذي عاد وصال sama adija li koy waral mooy sàkku cofeel sama diggante ak yal na yàlla saxal bu mu cofeel googu te musal ñu lépp loo xam ne dafay yàq cofeel googu kóllëre googu sëñ Tuubaa ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi sifal widaadi la tartaabu wa kayfa la wa Mustafa al mujaabu imaamuna wal xitlu na nahaabu Sëriñ Tuubaa ne yàlla na la yàlla fay ngeen di fay nanga xam ni cofeel googu ngay sàkku day am na fi bari lool ni ko nan la dul mën a amee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu njiit mooy suñu kilifa kon mbokk yi nañuy waxante lu rafet nañuy jëfante lu rafet ci diggante jullit yi ci diggante mbindéefi yàlla yi xam ni nit del wax ci moom lu rafet min xusni islaamil mar'i tarku ma la yaani li nga xam ne nag léeru la nga téye ci sa làmmiñ Sëriñ Tuubaa dafa ni la ida nadarat aynaaka ayban fa qul laha aya ayn la tubsir wa linnaasi aayun su say bët xoolee sikku jàmbur ba nga bëgg koo wax joxoñal say bët ne liñ bët yi bàyyil sikki jàmbur yi ngay xool nit ñi am nañ bët yu ñu xoolee sama sikk lisaanuka la tadkur biha awra timri in fa kulluka awratun wa linnaasi alsunu sa làmmiñ bu ci tudd sikkus jàmbur ndax bëri ngay sikk te ñi am nañ làmmiñ ñu ko tudd nga ne ko nu may def mu ne wa duma ala nawari aybi nafsika wa dawihi wa tubli xaw fi rabbika sa xal ci faj sa ay bi bop te saafa seet sa ay bopp saafara ko te tudd ci sa borom beneen aaya bi ñuy indi beneen xaadisa bi ñuy indi mooy qissatul marjum ci ni ñuy traité information sëñ Tuubaa mi ngi koy nettali ci Masaalikul Jinaan benn jigéen boo xam ne dafa mooy yàlla fekk mu sangewu fekk mu am borom kër ñëw wax ko yonent bi saa sam dénoncé boppam man damaa am borom kër mooy yàlla yonent bi woote ni nañ ko raj mu nañ ko sànne parce que ku mooy yàlla te am borom kër ma sa am borom kër sax wala nga mooy yàlla te ma sa am soxna mooy njaaloo dañ laa war a sànni ay xeer ba nga faatu loolu mooy mbugal mi yonent bi ne woo leen ko ñu ràññ ko ñu sànni koy xeer sànni koy xeer ba ndaw si faatu ñaari nit jiitlu ah waa ndaw si bon nii la nii lay def rek nangam nangam di nettali information bi am mooy sànni gi ñu ko doon sànni xeer ba mu faatu yonent bi waaxu dab leen ni leen yaa hazaani yéen ñaar ñii lekk leen ci mbedd mbaam mee ñu ni ko ah mu daan ne maa ngi leen di giñal di ndaw sii ngeen di wax nii jëw ma ngay maa ngi koy séen ma ngay diri ay mbalaanam ci biir àjjana yéen ñaar fu ngeen jëm da ngeen ko xoolal ñun dañuy fekk benn information loo xam ne rafetul toujours ñu del ko di ko véhiculer kile bi sallallahu alayhi nee na ba ma ba ma yàlla riñaalee isra wal mi'raj damaa romb ay nit ñoo xam dañoo yor ay wee yoo xam ne përëm nañ ko defaree di xotti seen dënn yi di xotti seen yaram yi deret yi di sànni ma laaj jibril ñii ñan la mënuma ñii ñoo doon wax ci deru nit ñi ci àdduna lu bon xoolal kon influenceurs yi ci rajo ci télé ci internet ñi nga xam dañ leen di tudd ay influenceur dañu am doole ju rëy ci Sénégal influenceur moom inf tur bi sax wuyu na boppam influencé influencé fexe ba nga defe dara te du dara fexe ba nga jàpp dara te loolu amul loolu mooy influencé ñu tuddee leen ay influenceur nga xam ne wax musiba rek mooy seen métier te xoolal fii yi ñuy am ci internet xoolal doole ji ñu am kon yooyu yëpp ñun réew mi bu ñu ko doolelee kon dooleel lu dul dëgg la. ñu jàngat xadisul li ñuy wax aaya bi wax yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum jàng jàngat tëjee tuuti ci tuyaabay gàmm joxe kàddu gi incha allah ndax waxtu jeex na <coughs> aaya boobu nan la xewoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa yónni walid ibnu uqba moom la yónni ci bani mustalaq ndax bani mustalaq kat dañoo tuub dugg ci lislaam ak seen kilifa gu ñuy wax xaaris buñ diraar xaaris buñ diraar moom mooy waajuru juwayra juwayriya mooy soxna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon moom goro yonente bi la sallallahu alayhi wasallam mu dugg ci lislaam moom aw nitam yonente bi sallallahu alayhi wasallam taklif ko ni ko xaaris dama bëgg boo demee ci sew nit nga laaj leen azaka dajale ko dinaa ko jël si waxtu sàngam masalan tey mu ne ko dinaa ko jël si weer wu dee xaalis daal dem ci aw nitam daal di leen di sang bi nee na dajale azaka ji di ko dajale sax am ci pëstif lool di ko dajale di ko dajale di ko dajale ba azaka ji mat mu jóor ko bi mu ko jóoree sang bi waxtu wa jot mu yónni Walid ibnu Uqba ni ko demal jëlale ma azaka gaay ci xaaris demal jëlali ma ko Walid ibn Uqba départ daa di dem ci bani mustalak ci xaaris pour jëli azaka ja ba mu demee ba ca yoon war ragal dàpp ko ragal jàpp ko ragal mu daal di wàññeeku au ba mu wàññeekoo mu joxe information bu baax mu joxe fausse information mu ne yonente bi sallallahu man de damaa dem ba jub dëkk ba gis leen ñu takk seen xare bañ lànk nañ bañ maa jox asaka naroon maa rey moo tax ma daw ñëw xoolal information bi mu te ñee ña ngi ko doon xaar dajale asaka ji ba di ko xaar moom mu ñëw joxe fausse information ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daal di dajale ab xare pour bëgg a jàppi xaaris moomu di gorom bëgg ko faagaagal ndax li mu def xaaris moom lan moo xew ci moom xaaris toog ba mu yàgg mu ne aw nitam dafa mel ni suñu asaka gi yàlla nanguwu ko moo tax yonent bi waxtu weer wu dee la ma waxoon te weer wi dee na ba tegal ay fan te ñëwul kon dafay nañ daje ñun ñëpp dem ca sang ba sallallahu alayhi wa sallam ba xam suñu azaka ji yàlla da koo nanguwul wala lu xew xoolal kay information ba mu joxe ak ñii mu joxeel information bi ñoom liñ jàpp ñoom ñi ngi jàpp ñoom ñi ngi tiit ci seen xol di li ñu defal yàlla ndax yàlla da koo nanguwul ba tax yonent bi jël siwu ko kee dem ni yonent bi ñee dañoo bañ a joxe azaka ba bëgg maa rey xoolal fausse information xoolal ni muy amee ci suñu mi nit ku la jox information boo xam dara laalewul ci moo suñu borom ni la ndànkul ndànkul in jaakum fasiqun bi naba in waaye bu leen information ñëwelee ci kàccoor information bu critique leer lool yenn saa ñu jox la information sa soxna nga fase ko nes tuuti nga xam ne la nga ko fase du erreur la nga toppaat cay daw mu jafe la lool yenn saa ñu jox la information bu fausse ci sa xarit nga bàyyi ko dogoog moom dem ba mu yàgg information bi leer nga retrouvé wu bëgg a dem mu jafe lool kon fu information bu génne bu négatif jóge ci nit fata bayyanu leer lul gis nga yonent bi sallallahu alayhi ba mu nee teg ba xaaris dawee ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ni laa ilaha illallah suñ borom ne ko nag ni yéen ñi gëm in jaakum fasiqun bi naba in fata bayyanu bu leen kàccoor ëndalatee information leer lu leen ko ndax man ngeen a dal ci aw nit fekk ba ngeen di dal ci ñoom xamu leen après ngeen rëccu fekk booba rëccu wees na kon mbokk yi nañuy góorgóorlu ci suñu réew mi nañuy fexe ba làmmiñ yi nañ ciy wax lu baax mbokk yi nañuy waxante lu baax waxuulu li naa sa xusna nañuy wax ci nit ñi lu rafet nañuy wax lu baax ku nekk sa kër sa wujju yow soxna si mënoo koo ñaawal ba yàq digganteem ak sa boroom kër waxal lu rafet ci sa wujju sa wujju di wax lu rafet ci yow waxal lu rafet ci sa dëkkandoo dëkkandoo di wax lu rafet ci yow waxal lu rafet ci sa xarit sa xarit di wax lu rafet ci yow ñi bokk daayira nañuy waxante lu rafet ñi bokk mbootaay nañuy waxante lu rafet ñi bokk kër nañuy waxante lu rafet ku nekk li nga xam ci sa morom ci lu ñaaw nga nëbbal ko ko te génneel ko lu rafet li nga xam ci moom jullit noonu lay mel jullit day xool ci mbokkam lu rafet di ko wax yow mi ñuy wax tam sëñ Tuubaa dañoo jàngal foofu dama koy indiwaale mooy encaisser parce que jamono yi rek gis nañ benn xew xew boo xam ne bu ñu metti la ñun taalibe yi bu ñu metti la ndax daa am ci fu ñu jege ñoo xam ne kii ngi wax lu bon kii ngi wax dara information jëmee ko ci mbokkam kee tontu ko wax lu bon ci moom ñuy tontonte jullit taalibe yi ba daf leen a dérangé parce que dafa jóge ci koo xamante ni taalibe yi daa am fu ko tegoon ndax daf leen doon jariñ seen diine parce que parce que dafa am lu ci Sëriñ Tuubaa jàngal la taxdab bi xawlil xaa il fa inna ma ma qaala fiika muhiqan aw mubtila wa ala kulli xaal fanzur fi nafsik nee na bul mer ci waxe aji mer bi aji wax bi ki lay wax lu bon bul mer ci waxam nee na la da ngaa nangam da ngaa nangam na xoolal sa bopp ba xam li muy wax dëgg la wala du dëgg su fekkee nee na la yow doo waxkatu dëgg xoolal sa bopp ba xam soo xoolee ni doo waxkatu dëgg nga faj nga faj loola ci yow rek nga fexe bay wax dëgg mu jeex nee na bu fekkee nee nee na la doo wax dëgg nga xool sa bopp xam ni yow mii da wax dëgg xam ni kon waa ji li mu lay wax du dëgg jàppal ni waa ji da lay won ni wax du dëgg baaxul nga bàyyi ko jeex na kon ku la da ngay jàng encaissé maam nit bu la joxee dara wax la dara lu la dérangé xoolal sa bopp rek nga li mu la wax kii ci yowam de boo ko defee dem te du noonu nga tuub ko su dul noonu nga xam ne dani la lii lu bon la nga bañ koo def mu jeex loolu lañ Sëriñ Tuubaa jàngal kon loolu bu amoon ci diggante ak ñaar ma leen di junj kon tey du am lu naqari taalibe yi lu génn foofu mais tey jii ñu bari dañ ci am kersa bu ñu koy déglu dañ ci am kersa sa da nga xam ne lii warul woon a jib fii warul woon a jib fii kon fi ñu tëjee rek ci ginnaaw bi ñu soññee suñ bopp soññu jullit yépp ci ni jàngoroy wax nañ ko moytu parce que accident wax néexul a réparer tey sëñ Tuubaa mi wax ci benn téere ni boo gisee gàkk-gàkk sa diine gis yàqu-yàqu ci sa alal gis weere sa yaram yenn saa yi lu bari lu koy indi fa alam bi annaka takallamta fi ma laa yaani xamal ni wax nga lu sa yoon newul wax nga loo waru woon a wax kon wax loo waru woon a wax day indi gàllankoor ci sa diine day indi wéere yaram day indi lu baree bari ci nit ki ci ay mbon mbon tey li muy gën a yokk mooy day dugal nit sawara boo légee ku ne jàng na Aïcha wax na ci benn jigéen ni ko mbubam bi daa gudd rek yonent bi ne ko waccul mu wàcc wàccu lu mu deret yonent bi ni ko lii boo ko wanaasoo woon boo ko wannoon boo dee dem sawar te dani mbubam bi daa gudd rek mbubam bi daa gudd kon mbokk yi nañuy xalaat lool bu baax di waxante lu rafet di jëfante lu rafet ñu tëje nag ci bis bii ñuy màggal mbokk yi saa bu nekk dañuy gis information yi ñu bari dañuy bidaa la gàmmu bidaa la nangam nangam bidaa la loo xam ne nit ñaa ngi koy jëfandikoo sunu mag ñu baax ñu dundal ko indil ñu ko ñu ciy jege yàlla di ci am ay daraja yu rëy rëy ay nit taxaw ci rajo bi di ci di yàqal bopp nit ñi di yàq information di wax ne lii bidaa la lii bidaa la lii bidaa la mais mbokk yi tur solo si mooy la mu ëmb tur solo si mooy la mu ëmb suñ ne màggal turu màggal gi da ngay xool lan la ëmb bu turi yeesee ci yow tam yeesee ci yow mais lan mooy màggal da ngay poser sa question màggal lan la ëmb murid yi koy def lan lañ cay def nga gëstu ko ba xam li ñuy def ci màggal diina nangu na ko wala nangu ko suñ ne gàmm bul tëb tëb rek ne gàmm araam na wala bidaa la mais da ngay xool gàmm lañ cay def ndax yonent bi daana def loolu wala daaw ko def loolu ngay xool te gàmm googu gàmm gi nga xam ne ñenn ñi dañu koy bonalal ñu xam ne gàmm googu Seydina Muhammad moo ko njëkk a defal boppam booy xool xam nga ni nit du ni dajale ab mbooloo naan ñëw leen màggal ma fala tuzakku anfusakum alxuraan moo ne bu leen sellal seen bopp bu leen yëkkati seen bopp kon du xel lu moos nit dajale ab mbooloo naan màggal leen ma kon loolu mooy wane ni yonent bi mënul woon a tenir gàmmu parce que du toog naan saxaaba yi ñëw leen ngeen màggal ma màggal sama gane jamono waaye daana def loo xamante ni nii tey wane ni moom màggal na bi mu ganee jamono ndax daana woor altine suñ ko laajee lan moo tax mu ni fii ci laa gane jamono kon kooku mi ngi màggal bés bi mais lan mooy am gàmm gàmm la fay am ñu ñun xam nañ ñu ngi nii tey di waajal lan ñu ngi waxtaan ci Seydina Muhammad ay jikkoom kan moo ko njëkk a def yàlla kon yàlla njëkk a gàmm yàlla moo ne yonante bi wa innaka la ala xuluqin azim kon ñun lii ñuy def yàllaa ko njëkk def ci kon loolu nu muy nekk bidaa ñu toog di waxtaan jikkoy Seydina Muhammad boo ko tuddee bidaa kon li alxuraan wax noo koy tuddee yow ndax alxuraan yàlla mooy wax yonente bi ne wa innaka la ala xuluqin azim tekke bil muminina raufun rahim laqad jaakum rasul min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim yàlla moo ko njëkk a wax kon moo njëkk a tagg yonente bi ci ay jikkoom la des mooy ñi ngi nii toog bëgg toog tiim ay xasida di jàng ay salaatu ala nabi jës bu mawaahibu muqaddamaat muy ay salaatu ala nabi yu baree bare yàlla moo ko njëkk a def ci alahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak malaaka yi dañuy julli ci yonent bi yéen ñi gëm leen ci yonent bi kon yàlla moo njëkk a gàmm kon ñu xam ne li ñuy def yàlla moo ko njëkk def moo njëkk gàmm moo njëkk a tagg Seydina Muhammad moo njëkk a julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu rek moo am ci gàmm leneen la ca des mooy berndeel berndeel moom itaamu taam ku ne xam na ni yàlla ni mu ko tudd ci alquran du jeex du xaaj ci biir ayat quran yooyu kon ñu xam ne gàmm googu lu am solo la ci diine kon bu ñu kenn yàqal jaamu yàlla yi ñuy def te xam ne ay tuyaaba yu rëy lañ ci mën a dégg te dinañ ko gis ci bayit yi Sëriñ Tuubaa de moom dani ahyaytu mawlidan nabi min asasin wa qaada lii fawqa almuna fii hëm sa sin sëriñ man màggal naa guddik seydina muhammad gana jamono seydina muhammad ci asas asas mooy lan la commencé gàmm nee na ma am ci lu kawe sama njort ci tuyaaba ci 1345 muy hëm sa sin muy 1345 daal ni nag mawliduhu muazzamu mubaarakun muhtaramu taazimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi mu ni gane àddunaak yonent bi gu màgg googu gu tedd la gu ñu warmaan la kon màggal ko war na képp koo xamante ni làq nga ak jiitu màggal ko war na ci képp làqu jiitu wala nga bëgg a jiitu fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada faxtariman wa azami wa azimi faxtariman wa azdimi mu ni képp koo xam ne màggal nga guddi gane àdduna ak seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne mooy buntu njub yow bu ëllëgee la la yàllay faye mooy du la réglé mu metti lool yow kenn du la réglé ñàkk a réglé nag mooy ministre wala président bi wàcc aéroport niñ koy jëlale valise am ubbil ko otoom dugal ko ca jaarale ko salon d'honneur ubbil ko oto dugal ko ca taalal ko otoom dawal ko ba buntu këram ubbil ko mu génn ñu jëlal ko valisam dugal ko ci biir biir këram mu dugg kooku mooy falaayu xaasabu gada kooku kenn réglé wu bokku la nag musaawaat ma wàcc aéroport na ñuy vérifier ay bagaasam nañ koy seetee loolu lañuy wax xisaab fa man yuazim mawlida xayril baraya ahmana faka shahidun shahida badaran bi xayri wahami mu ni képp boo xamante ni màggal nga guddi gane guddi mooy mel nga ni ku teewe badar te lii ma wax du njort mooy lu ma leer la mooy mel nga ni am nga tuyaabay ku teewe badar te yonent bi saasam daana wax ne xanaa xamu leen ni waa badar xamu leen ndax yàlla tiim na leen ni waa badar def leen lu ngeen neex yàlla du leen toppati ci dara kon yow boo màggalee guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ji mu gën a jamono mel nga ni ki teewee badar waaye nag bu tuyaaba yi réyee nga xam ni teewee badar mën nga ko am ci guddi gi mën nga cee am ku teewe mel ni ku teewe xuneyn mën nga cee am ci ëllëg yàlla du la réglé ba nga buur bëgg koo def mu ne la nag ni koy defee mooy taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muazzami mu ne aw muazzimi mu ne màggaliinu sunna da nga koy màggal teg ko ci sunna mooy caaxaan bu mu fa am mbóorént bu mu fa am lu neexul suñ borom bu mu fa am mu ne nañ ko màggal ci sunna teg ko ci sunna boo ko defee mën na laa wommat dugal ajjana dolli say may ñeel ki sellal màggal gam koy màggal nga ni ko comme da ni nañ ko màggale sunna kon nan laa koy màggale ba tey ci wan yoon laa kay jaar ni fa kullu man en rafi maalan bi xayri sharaqi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yawma xunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral waral mufahimi mu ni képp koo xam ne dépensé nga sa alal kon lii tey waa daayira bi taxawal muy diwaanu manaayil saafi ak dawaayir yi ànd ak ñoom jël seen alal cotisé ko dajale ko def ko ci guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alal joo xam ne leew na nag la wax leew na kon alal ju lewul mënta jaamu yàlla alal ju lew nga def ko ci donte ab dërëm la nee na mel nga ni ku teewee yow ma xunay ni muy xar mel nga ni ku teewe badar te muñ ànd ak seydina muhammad sallallahu wa sallam nga ni ko baxam dépensé alal rek mu ni fa man taaman hayyaa liman lahu qad qaraa mubajjilan fa xabaa xayraatu ahlil himami mu ni ba tey bokk na ca nañ koy màggale nga defar aw ñam jox ko ña nga xamante ne ni ñooy jàng ñooy màggal guddi ga nga defar nga jox leen ko nee na boo ko defee de di làq tuyaa nit ñu am yitte ya te seen borom ñi nga xam dañoo amul yitte yu mag ya te seen borom tuyaaba dañuy am da nga ko am mu tëjata waman ala say in xara mawlid sayidil wara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadgami mu ne képp koo xam ne nag yaa ngi jàng mooy ñii di jàng xasida yi ak ñii di jàng yor seen kurus di jàng salaatu ala nabi ak ñi toog di durus mu ne yow miy jàng ay xasida wala ngay jàng ngay jàng ay salaatu ala nabi wala ngay zikar ci guddi ga nee na ngir sàkku barke rek di nga gis tak dolleeku ci ay may di nga gis tay dolleeku ci ay xéewal bu baax a baax mais yow mi teew na nga xam ni jàngoo dara da ngaa teew rek di seetaan si da ngaa teew rek di jàpp ci mawlid gi mu ni fa kullu man xat xadara kon yow bokk boole na la ca de nee na mi nga xam ne da ngaa teewee mawlid afdalil wara gane àdduna ngën ji muazziman mubashira bi sukarin aw laxami fa innahu qad ghafira bima yudimul bushara wala yulaaqi darara yawma ijtimaai al umami mu ni yow mi nga xam da ngaa teewe bis bi kese wala yow mi nga xam ne da ngaa indi ndawal wala suukar di ko jox nit ñi ñuy xéewlu na nga xam ne làq nga loo xam ne day yokku say mbég te doo dajeg benn lor bis bu yàlla dajalee jaam yi yow doo dajeg benn lor kon mbokk yi fii la ñuy tënke nag waxtaan wi di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ci mbaaxam ak xéewalam mu may ñu fekk at yu baree bari te yàlla nangul ñu fi nangul ñu te lépp luñ fi wax yàlla nañ ko wax ngir jëmmi suñu boroom suñu borom it yàlla nañ ko nangul ah ñi ngi santaat bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi mbooloo fi teew yépp ñu ngi leen di sant di ñaan suñu borom mu yokk xéewal yi yokk sutura yi waaye ñaan suñu borom réew mi di Sénégal yàlla na fi yàlla yaa ci jàmm nawet bii ñu nekk yàlla na ko yàlla baaxal yokk xéewal yi bu baax yokk sutura yi bu baax sunu état bi ñu am tam muy état bu bees ñoom it yàlla na leen yàlla dooleel ba fi ñu bëgg a yóbbu réew mi ci fu baax yàlla na leen yàlla tàggat ba ñu ko foofu lépp lu nar a gàllankoor réew mi na yàlla gàllankoor loolu sunu kilifa diine yi yàlla na leen fi yàlla bàyyi képp koo xam ne danga ngaa jóg ngir noonu leen wala ngir jéem a gàllankoor dara ci diine ji yàlla na la yàlla gàllankoor yàlla na la yàlla soppi ba sa xel loolu dootu ci nekk ak ak lu baax rek nekk ci yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat waa diwaan Manahil Safia di santaat dawaay yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi waaye di sant média yi nga xam ne tam ñoom ñoo fi teew ngir jël ngir jël gàmmu gi mooy waxtaan yeeg njàng mi yëpp di ko jël di ko tasaare ba fi mu toll mi ngi nekk en direct ñu bari ñu ngi koy seetaan ah, yàlla neen yàlla fay ñoom it leen bu baax a baax ñi ngi ñaanal ah, ah, sëñ Modou Mbenda yàlla gën ko yàggal ci kanamu taalibe yi maam Cheikh Rahane Fall yàlla defal ko ci lu kawe njortam waaye ñu ngi ñaanal sunu jëwriñ bu baax suñu Cheikh Munda yàlla nag fi yàlla gën a yàggal ak ay rakkam ak ñi fi ñi féete ci penc mi yëpp ay doomam ak rakkam yëpp yàlla fi yàlla gën a yàggal gën leen a wéral sant ñëpp rek di gërëm ñëpp commencé ci njiital daayira rek muy eh, Serigne si la ñu ngi koy sant ak ñu mu ko àndal ñëpp ñoom sëñ Papa Guèye ak ñi mu ko àndal ñëpp nga xam ne ay mag lañ ñoo xam ne am nañ seen moroom yi ñu ko daan àndal mais kenn ñu ci baree bari man man mayetu leen xëy na ñu teew wala jot mayetu leen waaye ñoom bés bu ne ñu ngi uuf xale yi ànd ak ñoom ci bés bi commencement ba ba mu jeex seen âge mayetu leen ko seen xëy na seenu wér mën na ko bañ a mayeti waaye teewul fu gi ñëwee ñoom ñooy jiitu xale seen doom seen i njaboot topp seen ginnaaw ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ñoom ñu ngi leen di ñaanal ñu gën a gudd fan gën a wér ba gën koo mën a ànd ak xale yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin